Ndiaye du journaliste c'était chose qu'il a nié mooy que ne moom du journaliste c'est un enseignant fonctionnaire de l'État du Sénégal mm. yorul carte de presse yorul groupe de presse administrateur page Facebook la yor yore chaîne YouTube am comme ni ma koy defee ni ko keneen ak keneen di defee fii bari na tey jii ñoo xamante ne ni ñu ngi ak seeni i lenn nag dafa am ci yéen journalistes yi loo xamante ne nii gëm naa ne ñu ngi leen di mënal tey combat mais tôt ou tard da ngeen ñu ci fekk si ndax na code de la presse bii nii xeex ngeen ko ba am ko waaye yaakaar naa boo leen moytu mu nekk un cadeau empoisonné pour yéen ni muy nekkee un cadeau empoisonné pour yéen mooy que di nga fi gis journaliste bu exerce ay fonction plus de ans ñu jàpp ko dugal ko kaso la preuve Mati Sarr bi nga xam ne journaliste la tey jii démb retour de parquet la am ñoo ngi woon tribunal ak ñoom parce que ñun ñii démb tribunal lañ nekkoon Modou Ndiaye retour de parquet la am à l' insurrection de fonction yaakaar naa nag appel à l'insurrection bu ñu koy wax mën nañu ko wax ku mu nekk ba mu des doomu Bambey ndax ñun waa Bambey de ñoo ngi nii toog tey mais liñ ñu bàkkee mooy ñun dañoo ragal liñ ñu bàkkee mooy ñun nous sommes une population pacifique liñ ñu bàkkee mooy ñun duñ xeex dara liñ ñu bàkkee mooy ñun famille bu mën a muñ lañ liñ ñu jàppee mooy que ne ñun doon nañ nit ñoo xamante ne amuñu dara naqaru àdduna aka ñoo am lu ñu naqar dañoo doon ay nit ñoo xam ne dañ ñoo yar waaye nag dañ leen di wax leen ñu ngi bu ñu buñ bu ñu yee dañuy nelaw de waaye ay bu ñu yeeyee Euh, waaw loolu occasion nga ñuy may pour ñu lancer waale benn message xam nga bu fekkee ne dañoo nekk ci réew moo xam ne dafa am ñuy gas am ñuy suul ak lu mën di xew tey jii xam nga gis nga ñi fi toog nii yëpp wax nañ leen que ne dossier bi doon na dossier boo xamante ne nii ça n'a rien à avec la politique parce que sur les besoins de l'enquête aussi euh, enquêteurs yi laaj nañ Modou Ndiaye ndax dafa am parti politique bu muy liggéeyal Modou Ndiaye nekkul ci benn parti politique Modou Ndiaye affilié wul ci benn parti politique ndax nag yaakaar naa nit doye di ak ñàkk fayda mu ngi tàmbalee ci nga bokk ci parti politique ñi mewoo fa am carte ñi mewoo bokk ci instance ya ñi mewoo bokk ci fonction décisionnelle kon loolu yow war ngaa xoolaat sa bopp ci ku mel ni Modou Ndiaye position bi mu amee ci Bambey yaakaar naa bu amoon parti bi muy bokk du ko nëbb ci kaw loolu nag daf am ñoo xamante ne ni tey jii qu'on le veuille ou dafa am ay politique yoo xam ne tey jii ñoo jàppaloo Modou Ndiaye ni ñu ko jàppaloo mooy ñoo jël ay information joxe ko man nag damay laajte ci ban réew lañ nekk ba benn foo compte mën a toog ki réew mi di jàppale ay honnête citoyen ñu toog di ko seetaan loolu nag tey jii waa Bambey li ñu leen ciy woowee mooy que ne li ma yaakaar mooy message bi li mu war a jàllee jàllee gu ni moo waral point de presse bi ndax am na ñoo xamante ne nii yëguñu woon ne jàpp nañ Modou Ndiaye waaye yaakaar naa ak message bi ñuy lancé fii nii tey jii buñ ko déggee dinañ jóg ndax nag ku fi Modou njariñ amul ku fi Modou Ndiaye dafa fajalul soxla amul ku fi Modou Ndiaye defalul loo xamante ne nii keneen waroon na la kaa defal mu defal la ko amul tey jii nag ñii fi dajaloo ni tey jii nekkul ne dañuy defal Modou Ndiaye loo xam ne moom lañu ñu def mais dañuy rendre la monnaie à sa pièce parce que bañ soxlaa ñu jóg bam Bambey soxlaa ku ko jugal Modou Ndiaye da daan jug di taxaw ci turu Bambey te ñi ko jàppalu tey jii nii yàgg na leen a doxal ay soxla ñi ko jàppalu tey jii nii yàgg na leen a defal loo xamante ne nii bëggoon nañ ko am feneen te mënuñu ko am léegi nag dafa am loo xamante ne nii même boo ko mënee sax sa humanisme warul la koo may réew mi nag dañ doon wax que ne benn bopp la kenn mënu koo xaar ñaar may leen xaar nañ ko ba pare kay xool nan lañ koy dajale waate mais ñoom xar nañ ko parce que niñ ko xaree mooy que ne tey nga ànd ak man wala boo àndut ak man dinaa la toroxal loolu mënul jàll te ci kaw loolu moo tax tey jii nii dañuy jox la parole à sa famille ñoom ñu wax lan la leen Modou Ndiaye jariñ ban intérêt la leen Modou Ndiaye am ci ñoom ak tey jii fii fibre bi nga xamante ne nii familial amoon na ko ci ñoom ñu bëgg ñëw kase rythme boobu noonu yaakaar naa famille moom dinañ leen wax lan la leen Modou Ndiaye di jariñ parce que nag dañ ne diw bu baax na mbokk yaa ko wax Diop may nijaay Mamadou Ndiaye bokk yaayam ndey ak baay jàng école laa ko xameel di ko ñaanal mu xëy na ma nijaay damay jàngale ji at mi naa jàngale ma ne alhamdulilah depuis muy jàngale mësuma manqué dara yàlla def na bi mu demee ba gën a góor góorlu sax dana ma nijaay damay dem luye ji parce que kër gi dafa xat te gis naa charge bi nga yor def ko ñaari kër di la dimbalee ci genn wàll gi moo lay gën a noppal que ma dëkk ak yow nii toujours rek mu muy muy gën a métti ci yow kon kooku su amee problème même bu nekkul woon sama jarbaat sax fu mu fu mu lu mu ne dinaa ca ne bon wax ji nag comme am nay naataangoom man gis naa fi ñoo xamante ne bii samay doom lañ ay jàngalekat lañ ñii samay jarbaat lañ ci dëgg rek laa leen xamee biir Bambey gi ci sama kanam lañ juddoo ci lañ yaroo mosuma leen gis ci ay caaxaar Mour Ndiaye musuma ko jëli police ndax dañ ko ramasse musuma ko jëli mu màndi mosuma ko jëli ñu ne doonoon xeex wàllu wi ngeen wax nag journaliste tey laa mës a dégg ñu naan moom la wala du moom franchement parce que lu mu mës a nekk dina ñëw ne ma at mi naa lii damay liggéey lii mais nag journaliste gi moom maa ngi dëggal yow li nga wax ne tey laa mës a xam ne wala dégg ne day dugg sax ci mbiri journaliste loolu nag xañ ne yéen ñi ko yéen ñi xamante moom di ngeen ci mën a wax ba sori ci mais mënu ma ci sori li ma mën a sori daal mooy ku ku bëgg famem la maanaam depuis mu dem ba léegi sax am na ñoo xamante ne bii si famem lekku ñu parce que bu leen joxee sax te gisuñu ko duñ mun lekk donc lu ñu mun def pour dimbali ko mu delloo si ci njabootam loolu rek la am soxla li ci des nag ay naataangoo mi ngi nii gis naa ci ñoo xam ne nag moom xaw ma leen ciy caaxaan loolu moo tax ma gën a ñi ñemee wax mais man wax man su koy jóob laa tudd maay yaay magim yaay Mamadou Ndiaye ñu duddoo Bambey yaroo Bambey Bambey di sunu pare Mamadou Ndiaye ma koy ñaanal lii mu ne yàlla na ko ci yàlla génne amul benn problème lu mu ñàkk famee ma ko xañ ndeyam magi ndeyam jarbaatam bëggul mbubb bëggul dàll bëggul dara bu liggéeyee bu ñëwee na defal fameem defal rakki fameem man de dogu naa ci jëmmi sëñ Fàllu lu ma ñetti at man ko jëlee ba naga di lekkuma naanu ma ndax fam ma taxaw kenn taxaw ma fa kon dañ koo yab jël ko ñun nag lekkatunu naanatunu muy jarbaatam muy magam muy nijaayam muy tàntaam nan du dimbali ngir yàlla génneel na Mamadou Ndiaye sunu kii laay la sunu kii laay la ci biti sunu kii laay la ci biir xuloo wut xeexut doxut waxut jaay dorog defut lu jax fi caaxaat nan nu dimbali ngir jëmmi sëñ Tuubaa ndax di na nu lool nag bu nu amoon ku nu dimbali dañ koy ñaan na nu dimbali yàlla na nu génneel Mamadou Ndiaye mooy rek mooy sama naqar te su ma doonoon lu ko mën a génne ba tey génne naa ko waaw sama xol sedd na guy maa ngi leen di gërëm